voilà maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di vraiment di ci euh, déroulement euh, vote bi ma ngi nii di ci centre Thiénaba bi Thiénaba 1 bi mais vraiment tout se passe bien gis naa nit ñi génn nañ massivement et puis ak ak ci yar ak nit ngi rang di voté correctement bon bien que na nag mais ñu contexte vote bi la rek peut-être ñaari vote indi lolu

ak militants yi que xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wut quel que soit les résultats nañu gëm ne loolu la yàlla dogal euh, kii kii yàlla teg ñu ñëpp ñu ànd ci am jàppale ko je pense que c'est l'essentiel kon euh, situation boobu noonu ci euh, aborder waaw euh, li ma leen di ñaax ci côté jàmm rek mooy li ma wax léegi. Mhm. je pense que comme que vote bi mu ngi déroulé correctement li des mooy mooy ñu xaar dix huit heures. Mhm. heure dépouillement bu jotee ñu taxaw déglu su fekkee aussi ni ma gisee nii nag ragal naa boo deful nag dérogation dina ci am il ñu prolonger heure vote bi parce que yéex na mais li am solo ba am solo mooy ñu ñëpp rek mooy li ma wax laay répété. Mhm. ñu xam ne quel soit les résultats yu génn firnde yi doomu Thiénaba moo moo moo am ndam képp kon képp ku ko yaay yàlla jox il faut nañu nangu ndaw ñun ñun candidats yi sabab loolu la amoon ku ci nekk dugg dugg nga terrain bi joxe nga sa programme nit ñi ñooy choisir rek nit ñi choix bu ñu def bu mu mën a doon nañ ko accepté accepté ko nag du du du du du du du félicité ko rek toog da ko félicité ba pare laxasaayu comme que liggéey moo la ñoroon ñun laxasaayu ànd ak ñoom liggéey. ku mën a jël ku mën a jël ku mën a jël ndam li ñun ñëpp lax say ànd ak moom liggéeyal Thiénaba parce que Thiénaba rek moo ciy gagné. Euh, candidat ànd liggéey euh, suñu bopp ci euh, ay mhm. waa mhm. zone la. Mhm. waaw loolu mbir suñu borom la rek ndogal la rek parce que je pense que tourne naa ci zone bi lu presque lu ëpp. 15 jours te boobu ba tey amul benn incident kon tey bu ñu xëyee nekk ci waar bi lépp ci liggéey bi euh, oto yi daje loolu mbiru suñu borom la mais ñu sant yàlla bu baax parce que matériel bi moo am problème mais doomu aadama yi kenn gaañuwu ci te loolu kon maa ngi ci sant yàlla bu baax di ko nangu nag ndogal suñu borom la mais amul amul amul a rien de plus grave amul dara lu grave ci loolu sant naa ko yàlla bu baax a baax kàddu yu mujj mooy santaat askan wi gën leen a ñaax nañu ànd ak dal dal bi dafa am solo nañu nañu delloo dëkk bi àqam euh, nañ ko wormal li ma wax rek à 18 ku ñu jox ndam ñun ñëpp ñoo xam ne Thiénaba moo gagné. mais de sant yàlla di gërëm toute la population de Thiénaba jiital ci gërëm li sunu baay sunu sëriñ Baay Assane Seck mais di xool nit ñi nit ñu mobiliser dans le calme la tranquillité ñëw bëgg a accomplir seen devoir citoyen loolu lu ñu neex la et cela démontre encore une fois que citoyens ils sont engagés et qu'à chaque fois da nga une gis élection municipale ko mais les gens sont conscients que c'est une élection d'importance, parce importance parce a une élection c'est national envergure mais c'est le rendez-vous d'un homme d'un groupe avec sa population Et comme il population a une a une suba qui xam nañ la nga xam leen loolu un engagement on a vu aussi que l'administration a joué son rôle euh, pratiquement l'essentiel des bureaux ont été ouverts à 8 heures hmm? et les gens en masse les populations aussi sont venues et tout se déroule en tout cas pour le moment dans la tranquillité et dans la transparence oui mais nous une hauteur à grandeur ça c'est une élection Nous, avons choisi, c'est la population qui choisit Le résultat est gagné, ku tout. mais la population Nous bëgg ñëpp ànd de le maire élu sera le maire de tous les Thiénaba Tchanaba. donc dafa faut que nous avons ne accepté mais nous devons nous faire Nous war nous def dox programme nit maintenant c'est aux populations de choisir qui les neex mais nous si la population choisit Alpha ou Baba mais on va l'accepter ah parmi les neuf candidats nous avons beaucoup bokk wax bi bokk lu bëgg si population bi ne la mais na ñëpp ne kii la ñu mais nous ba jëm ci kanam ñu àndaat liggéey loolu rek lañ merci beaucoup et la presse aussi je vous remercie beaucoup vous nous avez accompagnés partout

ndax bu ngeen dee dox ci gox bi jàmm tax ngeen di dox a ah, di seet itam fu fitna yi ne ngeen jéem koo fay yàlla baax na nag bu ngeen ñëwee fii nag ci Ndindi Aan may chef du village bi a ah, ngeen xam ni dox ngeen li ngeen war a dox fii nag moom suba ak léegi nun xamuñu opposition xamuñu pouvoir nun ñëpp dañuy sànni carte yi kaf ree kenn ku naan bi lay su ma la jàppee nga ne suma la jàppee nu ree fii moom jàmm rek fi ne ndax fii mu ne tey boo duggee sama kër gi opposition yaa ngi ci biir duggal ci kër gi foo laal ñii ay Babacar Ndiaye lañu ñii Khalifa Ndiaye lañu ñii Ngouda Gueye lañu ñii Khalifaan lañu ñii Talla Diagne lañu waate xamme woon fi mu ne noonu ñëpp ñoo ngi ko fa créé soo ba tey nag bureau bii boo fa demee fii mu ne doo ci xam opposition ñëpp ñu nga toog ca bâche di ka fa créé ku sànni dem nga ci sab xarit nuyu ko baa nga ñibbi kon noonu macha allah nun daal ah yal na nu yàlla defal cat. Mm-hmm. ba diinu commencé bu siiseeree yàlla na ko yàlla eggale ba kenn ku ne boo demee di nga xam kalaman fii nag maa moom fii maa moom dina wóor mm-hmm. ki moom bu siiseeree di nga xam kalaman gis nga am na loo xam ci jëm boppam nun dee sunu bureau. ñeenti dëkk ko siq ñeent ndindaan kër mbay gay këramadu amadou kër ma tabara muy benn dëkk muy ñeenti dëkk ci benn biro xam nga boobu biro a ah, bu fekkoonte ni dañoo topp rek ay opposition kon nega ni tey jii foo aw ñu nga xiiroo ko ngaayee ko jàppante uh-huh. waate tey jii boo demee ci kër ñii këramadu amadou dëkk boo demee fee ñu dëkk ngeen béy nga nee kon nag nun xamewuñu opposition noonu daal noo bokk suñu dëkk bii élection yi du tax nuy noonoo du tax nuy reyante ndaxte koo dem dëkk boo dem sa rakka nga fay sëy baa sa a nga fay fay wala sa doom kon nag lu nu jaral waaye kay dénk na nag bu fi naree xeex nag kon ka ka ngay dénk xanaa nag da cee nar leneen noonu nag dofu nu junne jàppun fii nu ne son noor gii du nu nangu mukk ki ko yor ñu ko jël ci loxoom ñu yóbbu cene ba dañuy lànk duñ ko nangu de kon nag ne leen woon ni ne xel intérêt commune bi ak zone noor ndax ñun ñëpp noo bokk boo demee euh, est ak ouest suñuy doom nga fa suñuy mag nga fa waate nag ci jëm boppam dañ ni kuy wàlleyaan sa dëkk daal tëggul te ñun dëkk tëgg kon nag noonu yem suñu làmb suñu daanu noo xam ni daanu nanu deug mhm. waté nun kat son nor ak est ak ouest lañu yamal mhm. ndax nun ñep eh, soo démé fé sama ndey nga fa wala sama mag wala sama rak sama dom bu ñëw fi non kon nak yëma pam nan nek ben rek mhm. té xamni li kat asrir la rek bu siiseeree lepp jeex té li bu jeexé li fi nak da fi dess kon nag jëru ñaawoo nanu rafetal so mi ñu duggé ko marché ba. campagne bi amna na ay bruit ay détails ba yu ñu doon né nek ndax. dédé nun suñu campagne bi ku ñëw ñu téru la. ku ñëw am na ko la dalal dëkk bi góor ak jigéen ñëpp ay génn tàccu la na yaa fi ne mm-hmm. ah yaa fi ne nag ku focc def ci dëkk bi ñun kat ko fi ne rek ñu tàccu la amul benn intérêt kenn ñëpp la ñu yemale kenn mosu fee ñëw te teeruñu tàcculuñu la ñun la yaa ne boo nemee ni foofa nooy na dina wóor tey <laughs> nooy dina wóor tey. waaye loolu kon day firndeel li ñëpp muus. waaw jeex na ah li ñu yor ñoom moomuñu ko dañ ko jox askan wi. kon nag ku ca dof ba lekkoo ko perte nga dégg nga opposition ñëpp a yem ku ci nee naan ci jëm boppam su ma toogee dinaa def ne wut diw diw baaxul diw baaxul te man nag campagne bi lépp benn benn benn benn benn kii rek laa ci nekk boo amee da am da am benn euh, yow boo ñëwee da ngay wax sa vision nii bu ma toogee nangam nangam nangam nangam nangam mais tudd nit diw baaxul diw ne loolu ma ne te ñoom ñëpp bu ñu campagne leen dong la ñuy wax de suuf si suñ campagne lépp koo dégg man suuf su ma toogee indi partenaire ah partenaire yi jëm suufu jàmm pour lan la te ni koy da da day suuf si yow boo toogee yaa koy raw. est-ce que loolu a bàyyi ah, dégg mu naan fi mu ne bu ma toogee dinaa indi partenaire dinaa def nii demaa def ne na la wóor ni boo fi toogoo yaa koy raw man mii Bara Fall ñëw na fii. mu wër àll bi ne quatre cent hectares la fi bëgg man ko àll bi ñetti dëkk laa ko bokkal njaañ jaayaan ndindaan comme na loolu nga fa dinaa woo sama population ñu ñëw boo ñëwee dama ne ah bare par mi ne nangam la bëgg nangam la bëgg waxagul nag lu muy liggéeyee ak yow nga waxagul hectare nangam la waate ah comme wax na nan toog xaar ko météwul opposition daa jaar ni taala baara taal Alajaan jaay na ko suuf sa jox nañ ko 2 millions natt nañu àll ba. moo ne ña ko doon wax ñoo ginnaaw ñëw ni ma waaw damaa xamul élection dama bëgg léegi jëm boppam alors si jëm boppam euh, projet bi mën naa de mën ko mënta ne. ba ma ne maa mag ma wax ku ne ñëw weddi ku ne ñëw bëgg a dëggal fenn fenn ma du ko nangu. mais ci côté sécurité euh, benn noonu bañ na ko ba at ma benn garde la am. te day tëdd dem fee ga man ci suba la ko ne sax yow nga noy ba mëpp ubal buntu bi ñu ran man mi ñu na ubal buntu bi naan tan genn leen te itam ñu bass ñu bass dem leen tok ci ker ga bass ba nga ni dem leen tok ñu ran ko xamanteni ci dem nga bo demé sanni te ñibbi bo ñibul demal sega foofu ko am ab xal demal yendoog mom lolu yaakar gi lan la da ngeen koo te yàgg tey soo li dafa yàgg li kenn musta digg ndindi seen bureau ba am na coow ba am na saaga ba dara ndax mag ñee ko ñaanoon ndax man mi 1960 ba tey carte Ndindi sama baay ngi fa maa daan jël carte yi di ko booleke di ko def ci benn benn benn benn bureau ca PS ba tey jii carte yi lépp sama loxo lay jaar biñ demee ba tey nee na kenn ku lay watee sa bopp lañ dem kenn ku ne day wateel sa bopp waaye itam ba tey nag ah, la fa newoon na fa ne rek joxante cër te nun waa Ndindi dañoo joxante cër. man du ma wate damay bàyyi gan yi bañ watee ba pare lu may xëccoo comme may dalal gan yi waaye naa leen bàyyi bu ma leen dalalee ba pare nag su ñu demee nag bala ñoo tëj ma ñëw def la may def loolu tax watee gu ma. yu mujj waaw kaddu yu mujj li may. maa ñaan yàlla daal nii nu débuté nu eggale ko jàmm yàlla may nu seytaane bañ ci amul yoon ndax commencé nañ ko ba huit heures ba néeg ni noo ngi ree noo ngi kaf kenn mérul kenn soxol xol yënguwul Ndiaye nekk euh, Khalifa Anne euh, nekk euh, ci mairie bu Thiénaba dañuy jël mu ñëw rek ci situation fii ci bureau Ndindi nan la fi nekkee monsieur ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokk Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk commune bu Thiénaba leen wax ni maa ngi recevoir effectivement presse bi fii ci ci Ndindi Anne euh, Ndindi Anne nag euh, daf di bureau bu mag mais yàlla def na daal nit ñi dafa mel ni wat bi ren daf leen ñor lool moo tax daal bi huit di jot déjà rang bi gudd na trop trop trop trop. waaw fii mu nekk ñu bëree bëri ñi ngi rang rang yu gudd lool waaye mënaguñu fexe ba voté et pourtant vote bi mu ngi doxee dox normalement xam naa nag li ko waral mooy benn ñaari vote yi ñu boole te nit ñi xamuñu loolu bi ci dolli aussi dafa mel ni nit ñi am na benn farata bu ñu jox vote bi ren waaw te observation bi ma jëkk a def mooy que ren jeunes yi ñoo gën a bëri lool lool lool ci rang yi waaw jeunes yi daal xamul lu xew mais ren wat bi intéressé na leen lool wala nag lu ma se sedd suma xol la parce que dama gis ni réew mi bu njëkk jeunes yi intéressé wu ñu woon ci foot ci ci euh, politique te xamuñu ni politique moo yorum réew lépp lu ñu lépp luy doxalum réew rek ci politique lañ koy jaarale politique yi nag euh, politique boobu nag jeunes yi dañ ko bàyyi woon wan ko gannaaw soxlawuñu ko woon bàyyi ko ak mag ñi te mag ñi malheureusement mag ñi ñu ko bàyyi loon euh, xamuñu géopolitique xamuñu exactement fu fu àdduna bi toll ba li ñu war a def ci politique pour seeni gox développé wu mag ñooñu mënuñu ko woon léegi nag yàlla dimbali nañu ba jeunes yi vraiment ñoom ñëpp di wëlbatiku jëm si politique loolu c'est une grande grande chose à saluer waaw. waaw waaw li ma seetlu mooy que d'abord fii sécurité bi li ma fi gis ay ay ay ay militaires lañu. bureau bu ne daal ci àll bii daal benn militaire lañ fa def mais euh, fii moom yàlla def na ñi fi wote ñëpp c'est des parents par exemple man boo jëlee sama sama cas am na koo xam ni mooy sixième ci sama liste te rakkam euh, tête de la ci beneen liste alors pour vous diir que fii moom nit ñi xam nañu loolu kenn ku ne seet nga fa la neex nga nekk fa te yàqul ci bokk gi dara moo tax intervention bi ma jëkkoon def ma ni fii vraiment ma ngi sant yàlla parce que nit ñi jiital nañu mbokk gi avant ñuy jiital politique bi ndax euh, élection bi tey lay jeex à 18 heures bu suba ku ci xew la yeneen candidat yi nga doon yi doon bëreeg yow incha allah dañ dañ lay dañ lay ñëw ñëw ñëwal si la kon nañu jiital nañ ko rafetal te ñëpp xam ni élection élection la tudd waaye nag élection c'est pas une guerre du du loo xam ni da ngay def. dangay dangay dangay indi li wax euh, la la la force euh, de l'argument de la force mais au contraire c'est la force de l'argument loolu mo waram ci politique. wa mmh. mmh. mmh. wa euh bureau bureau Diayane gis naa fa ni malheureusement amul liste départementale ba dañu obligé wut ben cahier ku ñëw voter ci liste euh, municipalité bi ñu ñu ñu bind sa tur fële ci liste euh, commune euh, euh, départementale nga nga voter nga défal la à voter nga voter fi voter fële té normalement lool warul am normalement avant ñu doon commencer matériel bép dafa nek sur place mais xaw lutax administration fexé ba déficit mel non am fi mais c'est une faute de l'administration administration mo wara veiller à ce que tout le matériel tout le matériel nek fi bi rek la don expliquer fi xalé yi ñi bureau fi la formation fi man len vérifier que tout le matériel est sur place Le matériel nek sur place day wariñu def le commencer vote bi on doit commencer le vote que lorsque tout le matériel est sur place malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça à Diane. bien sûr bien sûr li ou ci man la tutelle euh, surtout ou le représentant de l'administration qui est le sous-préfet or c'est ce dernier lui-même m'a envoyé Kayabo pour utiliser cahier à la place euh, euh, de d'un registre voilà. Mhm. waaw dama dama dama dama wóor ba ba sonn ñëw nag di noppalu ma bëgg nag vers 16h ma ma ma jël beneen zone bi waaw noonu laa ko def man damay xëy fii le soir ma gont fële ce qui fait bu may ñëw le soir fekk ñuy dépouiller ma indaale en même temps les PV voilà noonu laa organiser suma suma déplacement. alors donc euh, li ma waxoon rek mooy que vote bi incha allah tey lay jeex mairie beeg département bi foofu mën di dem incha allah kenn rek moo fay falu comme kenn rek fay falu nag falam googu wër la yàq suñu dund waaw euh, cohésion bi war na am entre les familles wat bi waru ko yàq kon nag kenn ku ne xam ni yàlla moom pare na ki war a falu incha allah dina falu ñi wër la falu ñu wutiwaat beneen yoon donc maa ngi ñaan ñëpp ñu ànd dal ànd ak jàmm yéeneen te jàmm te xam ni mënoo développement mënoo koo def te te tegoo ko ci jàmm sans la paix on ne peut rien construire waaw loolu daal laa ne jërëjëf. coona di leen baalu ak di leen baal Assane Ndiaye la mandataire coalition grand coalition askan bi. bon nekkal fi Babacar Ndiaye vraiment tamit nag biro yëpp man maa ngi koy boucler sonnoor di ko wër di ko vérifier mais lii suñu jafe-jafe ñun bureau Ndindi bii ñuy watee ñeenti dëkk la ñu boole ci benn biro defe naa yow wax nga ko léegi. j'ai pas la. Mhm. waaw léegi maa ngi wër bureau yëpp tamit di ko vérifier mais bureau yi daal li seen problème mooy. fii moom ci moom amagul benn coow. Mhm. amagul débordement tamit. mais lii suñu problème daal mooy wate bi dafa yéex suñu bureau bii nag moom wax dëgg mënul tëj sax six heures. yéen ko gisal seen bopp nii bureau bi wataan yi dafa bari 500 wataan yu topp war a ci benn bureau te li li gën a nekk suñu problème mooy du benn dëkk ñeenti dëkk yu ànd la. oto yi dañoo mujj di obligé ay oto di jëli nit ñi ci biir dëkk yi di leen indi yéen a ngi koy gis kaar yi biis yi yëpp ci dëkk yi lañu ñu ñu di leen jëli di leen fay xaalis di leen jëli ci biir di leen indi bon moom mu mel ni nag ñun dañu war a dimbali tamit nag comme ñeenti dëkk la ñu jéem wàññi ñaar yi bàyyi leen ci bureau bii yeneen ñaar yi ñu yóbbu leen ci beneen bureau ndax nit ñi mën a wàññi ko quoi loolu daal moom su ma. 576 am na 500 am na bureau yu nekk canaba yu a ëppali ay nit. waaw peut nit ñi dañoo yéex a jóg waaw nit ñi xaw nañu yéex a jóg ndax boo gisee jigéen ñi dañuy heure boo heure heure bëccëg bi dañuy togg añ. xam nga heure boobu jigéen mënu koo bàyyi këram wàcc fa a bañam di wate boo gisee ñun suñu problème toujours ngoon gi lay doon jigéen ñi dañuy xaar ngoon gi te li ci li gën a nekk suñu problème mooy dafa am ñetti dëkk yoo xëy bureau bi da koo boot te nit ñi duñ tàmmatuñu maanaam dox dox di wate ji da ngay yóbbu oto jëli leen ñu doora a nu ko wate si boo ko deful da ngay am problème léegi loolu moo tax ñun dañuy jël ay oto jé andi leen bu oto yi ñëwandoo nag yéen a ngi koy gis nii boo xante bi day am fi nek ñi ñu ngi fi ba 18h ah comme dañoo amoon tamit retard parce que ñi ngi commencé 8h45. lan retard ah xamna naa manque de organisation yi la tamit nak ndax wax deug yalla représentant parti yi tardé nañu wa bureau bi tamit ñomit am nañu tardement ma wax deug yalla lool dal mom mom bureau bi 8h45 lañu ñu commencé kon am nañu retard 45 minutes ndax 8h pile lañu ñu war na commencé léegi nag président bureau bi mom xamal nañu ne bu démé ba nga xayanté ni situation bi demee nii dina mayewaat 30 minutes. ñu dem ba dix-huit heures ak ay demi ndoof daal moom la ñu tolloogul ci moom maa ngi leen sant nag di leen di leen gërëm tamit merci jaa ngeen